sukaral sa koor ak Free mi leen may seen émission préférée di Free ci sa ramadan Mixwell meew bi ngeen taamu saa su ne moo leen di may seen émission ziar rahman ya rahman saidni ya rahman ishrah sadri quran imla qalbi quran tëtëtët la journée a été trop longue ay embouteillage yu dul jeex tey moom ragal naa añ bi naaje ay ca on s'y met heureusement bi ma amee Aztec ndax dina ma yombalal lépp lu ma war a def ci kër gi xoolal ma lii frigo boo xam ni du laxal benn légume da dugal sa ndugg bu doy te du consommer lu bëri teg si ak si cuisinière intégrée Aztec bii sa togg dina ñor xom gaaw te neex benn fumée nag du la sonal ak haute aspirante bi dara gënul neex une cuisine intégrée tendance et moderne qui te permet de gagner de l'espace ba noppi rafet ba jéggi daayoo plaque chauffante frigo lave-vaisselle ak yeneen gros électroménager lépp ngir yombalal leen seen dundin te yamul foofu ñoo mën ci waañ mën ci salon maanaam daal lépp lu ngeen yitewoo ci kër gi Astec moo ci gën Astec daal mooy marque bi taamu qualité ci njëg bu yomb si bépp électroménager woote leen si 33 823 68 48 wala ngeen dem ci www.astec- www.world.com. Je m'appelle Lia et je suis la maman d'une famille de grands gourmands. À l'heure du marché, ils m'ont surpris avec une ambiance incroyable. Et c'est pourquoi j'ai fait un tour chez Mertiaba qui m'a confié ans de savoir-faire culinaire qui se résume à la gamme Kadi. Dès que j'ai émietté mon bouillon Kadi dans la marmite, comme Mertiaba me l'a dit, les Ndoyen ont tout de suite apprécié. Quelle bonne odeur et quel goût qui font la joie de toute ma famille. Gamkadi, bonjour l'appétit. ngir leeru koor gi gën a law saa su ne Free Money dafay maye bés bu ne 100 code Woyofal yu 2000 francs aux 100 premiers clients yi soog a recharger seen compteur ak Free Money te it jeudi bu ne dinañu maye 200 code Woyo Fall yu 5000 francs compteur yi njëkk a rechargé 6000 francs wala lu ko ëpp bu leen kenn jiitu tapel gaaw dièse 150 dièse wala nga téléchargé sa application My Free quel que soit ton opérateur sukkaral sa ak Free Money di free ci Ramadan

chef. ndogu bu amul mixuel daal du ndogu ferñeent yi mu àndal ak cafkaam bu neex moo tax ngeen war koo taamu ci weer bu sell bii kóoru jàmm ak mixuel رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di am contentement di leen retrouver euh, chaque soir à partir de 21h30 ci biir seen émission Ziar bienvenue alors xam ngeen ne nag euh, Ziar dañuy doxantu dem seeti suñu invité waxtaan ak moom xool li nga xamante ne moom lay allier li nga xam ne mooy activité ak ramadan bi nan lay demee. loolu yëpp nag duma ci wet ki nga ma ci àndal muy oustaz Modou Fall oustaz maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. maa ngi lay fay nuyoo di la ziar di. nuyu képp koo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias di ñaanal àdduna bi yëpp yàlla def fi jàmm waaye itam di ñaan koor gu sell gi ñu nekk lépp loo xamante ni bii rek woor nanu ko yàlla na nu ko yàlla nangul ci darajay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Oustaz vraiment tey nag euh, dañu am plaisir dalal si suñu euh, plateau euh, moom tamit il n'est plus à présenter suñu ne monsieur Madi Touré moom nag mooy président fondateur Génération Foot monsieur Touré ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission ziar di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay nuyu aussi di lay fay si visite bi et puis ci nuyu Oustaz. di nuyu téléspectateurs yëpp di baalu ak euh, tout le peuple sénégalais et di leen di ne di leen di souhaiter un bon ramadan. macha allah alors monsieur Touré xam nañ ne yow acteur nga ci lépp lu jëm ci wàllum sport particulièrement ci football alors tey euh, xam nañ ne récemment yàggul dara suñu gaynde yi dañu jël li nga xamante ne mooy euh, Coupe d'Afrique vraiment mu nekk mbégte ci pour toute une nation vraiment loo xam ne ñu ngi ko doon xaar alors yow en tant que acteur nga ko gisee nan dundee mbégte waaw mbégte bi mooy que mun naa ne mbégte national la. parce mhm. que aujourd'hui bu ñuy créer génération foot suñu objectif la woon mais dañu koy créer pour que Sénégal gagne coupe d'Afrique donc dafa bokkoon suñu mbébét. Mhm. yàlla def tey ñu gagne coupe d'Afrique bi. et maam si contentement bu bu rëy nag. Mhm. parce que loolu laa mës ak sama équipe muy ensemble génération foot xeex pour que ñu am trophée bi donc bu ñu ko amee mbégte bi moom. mesuré moo ko sax parce que vraiment euh, liggéeyu Sénégal la c' est mm. la victoire de tout un peuple sénégalais. Mm-hmm. et loolu vraiment maa ngi leen si remercier moo tax nee nañu bu ñu àndee ñun ñëpp si euh, même chemin. Mm-hmm. yàlla mun na def ay victoire yu bëri yoo xam ne Sénégal mun na ko am. macha allah comme ni ñuy wax rek euh, l'union fait la force alors ginnaaw Coupe d'Afrique bi nag ñu ngi dëmtal li nga xamante ne mooy Coupe du monde Sénégal tamit euh, war fa dem alors tey xëy na boo ko doon xool tuuti wala peut-être nga am euh, yenn nga jox ñu yenn je sais pas astuce wala dara loo xamante ne xëy na suñu joueurs yi dinañ ci gën a mën a bàyyi xel ak staff beeg yooyu noonu yëpp lan nga ñuy wax. waaw astuce bi ma mën a wax rek mooy que un match n'est jamais gagné à l'avance. Hmm. amatul mais yàlla def na nag aussi ñun am nañu équipe boo xam ne bu fekkee ni euh, du ma wax sax ndax gëm nañu seen bopp parce que gëm nañu seen bopp déjà. Mhm. parce que tey su may wax ak Sadio di wax ak ñoom Kalu euh, euh, Koulibaly ñoom seen motivation jéggi na sax Coupe d'Afrique. Mhm. te ñun comme li ngay wax rek dañoo amoon objectif mais am ambition. ambition mooy gagné ji ëllëg. Mhm. Coupe d'Afrique lan moo manqué Sénégal. mooy dañu neewoon bés bu ñu amee infrastructure ñu am aussi un président qui a une vision mhm. sans limite mhm. parce que lu ñu munti wax rek il faut ñu remercier ko delloo ko njukkal parce que tey boo demee stade boo duggee dafay mel ni yaa ngi nekk Angleterre wala yaa ngi nekk ah, euh, Parc des Princes mhm. donc là c'est un appui fort et qualité joueur yi ñu am man am naa yaakaar que ni coupe du monde bii bu ñu mobiliser comme ni ñu defee Coupe d'Afrique mm. Sénégal mën na nekk la première nation bi andi coupe du monde parce que man gëm naa ko. Mm. macha allah ah loolu de loolu dina neex de. voilà <laughs> amiin waay yàlla mën na ko parce que am nañu mais il faudra que ñu jël match par match. Mhm. avec beaucoup d'humilité. Mhm. parce que nit lépp looy def ci àddina rek. Mhm. bu amee humilité rek day yomb. dëgg la dëgg la macha je pense que le message est bien passé alors ginnaaw ginnaaw bu ñu jógee ci sport nag dañuy xool journée yi durant le mois de Ramadan ak activité yi nan lañ koy allier. waaw xam na man bu ñuy wax affaire Ramadan. man damay or souvent. ah donc euh, dafa bokk sa si sama dund. parce que dama ne aujourd'hui euh, soo xoolee tey génération foot mbiru yàlla la mhm. suñu borom mënuma ko fay mhm. donc li ma ko mën a fay rek mooy que si le lundi ak le jeudi mhm. dama koy woor année bi yëpp ah. donc loolu rek laa mën a fay suñu borom te ba may commencé woor sept la am ba may commencé julli sept la am donc loolu yëpp euh, euh, bonus la pour man donc tey pour man ramadan voilà habitude la pour euh, melul comme kii nii ah. toog nga xam ne 14h mu loof moom <laughs> voilà monsieur Touré alors euh, juste rek ñun nag bu ñu demee seeti suñu ay invité dañ leen di indaale ay teraanga ah. donc pañe yi nag suñu ay sponsor ñoo leen moo ñoo la ko jagleel lu ci mm. mel ni Mixwell en Oustaz vraiment ñu ànd ci bouillon kat yi ah. ak li nga xamante ne mooy huile chef Aïda ak euh, vraiment baax baax yi nga xamante ne daal ñu ngi nii pañe yi nag lépp a ngi ci dox dajale bu ubbee daal di ci fekk lépp donc lii nag ñoo la ko jagleel waaw maa ngi leen si remercier bu baax. Mhm. mais andi neen sama meew boo xam ne. mixwell moom lay moom lay jëfandikoo. ak ak xale yi donc ah. meew bu baax la aussi. je pense que ni vous avez mhm. <laughs> merci beaucoup monsieur Touré vraiment di remercier aussi au passage ki nga xamante ne mooy Free Oustaz Free nag nee naa la dafa ñëw pour yombalal du dinu sénégale yi nee naa leen bu ngeen di recevoir wala ngeen envoyé xaalis jaaral leen ko ci Free. voilà di remercier aussi ki nga xamante ne mooy Aztec Aztec nag nee naa leen lépp lu jëm ci wàllum. électroménager doxantu leen fa ngeen jënd ko vraiment ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp alors monsieur tour ban lan ngay jagleel rek tey sa laaj pour oustaz avant que ñuy waaw oustaz man question bi mu lay laaj mm-hmm. sama waajur bu jigéen katolik la lan mooy sama wareef sama diggante ak sama waajur bu jigéen alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi am mbégte lool dalal Mady ture mu baax mii nga xam ni moom la yàlla dogal tey mu jiite li mu jiite ñaanal ko yàlla bu baax yàlla na ko yàlla defal ay ndam yu kawe ci kanamu sénégalais yi nga xamante ni bi ñoom ñooy football ci daraja yi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni laaj na laaj bu am solo te mooy yan devoir moo ko war digganteem ak way juram bu jigéen ndax bokkuñu diine ñoom ñaar xam nga lislaam bii ñu nekk li ñu sharia jàngal mooy sa way jur même boo bokkul ak moom diine da nga ko war a ormal da ko war a fonk danga ko war a yëkkati ca kaw danga nga ko war a teral waaye da nga ko war a tarbiyu ndax ñaanu jur dana la dimbali nit ci àddinaam rawatina nag ba ngeen ñàkkee bokk diine ndax bul fàtte ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ci jamonoom tolloon na ci xat-xat foo xam ni dafa mujjoon a rawale saxaaba yi yabal leen ñu dem Éthiopie te booba ka jiite Éthiopie catholique la woon. kon nga gis ni relation bu rafet moo yàgg am ci lislaam ci diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñamu jamonoon teel waaye way jur ak lu mën a xew même bu ngeen bokkul diine na ko fonk na nga ko téye na ko jàpp ndax lislaam bii nag diine rafetal la xam nga yàlla daf ñu wax ni nu nanu gëm yonent yépp ba ci catholique yi seen yonent boobu muy Seydina Isa dañ ko war a gëm ñun amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yàlla ni laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli bul séparé yonent yi bul ni damay gëm Muhammad mais duma ma gëm Isa parce que moom la catalogue yi gëm déedéet yàlla nee na gëmal yonent yépp ñàkk bokk diine warta tax ñuy rafetal ñuy ñuy rafetal suñu diggante waaye ñuy gën a jàppante kon nag way jur nañu leen gën a fonk nañu leen gën a jàpp nañu leen gën a téye même boo bokkul ak ñoom diine rafetal gi moom yàlla la ko sant mu war sa diggante ak ñoom yàlla ñu yàlla may dégg gu ànd ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Oustaz leeral yi am na solo alors monsieur Touré dégg li nga xamante ne Oustaz moom la wax. dégg naa ko parce que lu tax ma laaj la question boobu mooy que ba ma juddee xaw ma sama pap sama yaay daf ñu fekk dama fekk sama yaay nekk catholique. mu jël ay doomam yépp jubale ñu parce que moo tax ñu jàng alxuraan. macha allah jàngale ñu parce que ma laaj ko bés lu tax ñu nekkuñu ñu mu ne ma parce que dañ la ngénte si xubba la si turu yonente bi. sallallahu alayhi donc loolu moo tax sama devoir dama ko war a def jusqu'au bout. macha allah jërëjëf yàlla def nag moom bu mu musee tukki dem Jérusalem. Mhm. dafa jénn mu gis si côté euh, ne mu gis jàkk gis synagogue. gis église. est-ce que si la ñuy ne ma vraiment lu mu ñu yóbboo ñu topp suñu diine daf si gën a am contentement. macha te loolu amul fay. te sama yaay moom amuma fayam si moom. te li nga ma wax tey. dinaa gën redoubler d'effort. macha allah jërëjëf jërëjëf en tout cas sama xol moom dafa tiis. parce que li nga ma dem si gën a am courage. macha allah yal na leen yàlla fay. amiin yaa rabbal aalamiin amiin jërëjëf yow it monsieur Touré vraiment ñu ñaanal suñu yaay yi yal na fi yal nañ fi yàgg yàlla may leen wér gu yaram ñu fekk lépp ñu bañ a séddale dara seen ginnaaw ñi nga xamante ne euh, seen yaay nag jiitu na ñu ngi leen di ñaanal fi ñu jógee yal na leen gënal fuuf fi ñu euh, fi ñu fi ñu jëm yal na leen gënal fuuf fi ñu jógee vraiment ñu ngi ñaanal yaay yëpp ci àddina bi alors monsieur Touré vraiment ça a été un plaisir ñu accueillir ci ziar di la sant di la gërëm oustaz di ñu jox rendez rek incha allah invité yi nga xamante ne ñoom la ñu dalal vraiment ñoom nee naa leen dañuy dem seen kër yi fekk leen fu ñu toog gis nga tey monsieur Touré daf ñu dalal ci biir këram fas yéene waxtaan ak moom li ci gën a neex sax yaa doguma la mooy kër gi boo duggee jàkka ju mag a ngi fi waaw moo lay wan ni ñii moom ay jaamukatu yàlla lañ mm-hmm. bi ñu agsee gis nga jàkka ji ci wetu salle bi nga xam ne diine rek moo am solo mhm. mhm. macha allah macha allah am na solo voilà chers téléspectateurs lii lañ leen indiloon tey ci li nga xamante ne mooy euh, ziar di leen jox rendez-vous suba incha allah ak beneen invité bonne fin de soirée au revoir rahman ya rahman saidni ya rahman ishrah sadri quran imla qalbi quran ayati ñoo ngi leen di jaajëfal ci li ngeen seetaan seen émission ànd ci ak Free ci weeru koor gi nañu jege suñu njaboot ngir tund weer bu ànd ak tawféex bi di jàmm اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن